Sabbath.

وجسدي خسي بزاد sëñ bi euh, ñu ngi lay euh, ziar bu wér euh, di am mbégte ñëw fii ci sa ëtt bi tey jii di bésub màggal ko sëñ Touba ñu la doon laaj rek yan kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci màggal gu ren ak mbégte ndax wax kilifa doon moom ak mbokkum ak dem la ci diin lépp waaw ah, mu xëy waa wan gannaaw këram ak njabootam waaw. Ah, di ko ay nit day ñàkk ñu doy waar fab leen ya fab yóbbu rek a ah, loolu moom xam na ne ku mi sa mbokk wala mu sa waajur du la neex nag moom moom daa xam loo xam ne noonu xamuñu ko ah, ndax moom da doon liggéey yonent bi rek ci jaam ñi lislaam waaw ah, léegi nag Euh, loolu moo tax moom suñu borom defal ko ci bisum jubam nangoo rek ma fa laata jóge rek la ko suñu borom laaj loo bëgg loo gën lépp loo bëgg mën nañ la lépp tax muy sant suñu borom sant gi mu sant suñu borom nag kër gi ma day jaam rek ko waral bu sante junni rek ñun euh, sant lu ëpp loolu. ndax dem nu defal noonu mën nañ ko suñu bopp sañ nañ ko suñu bopp itam kon naa ngi sant suñu sant gannaaw bi naa sant suñu boromam di ko sant yonent bi di ko sant moom itam kon nag ak nag di sant maa ngi sant ki nga ma ci boole mooy si amul Fadal waaw maa sant bokk jullit yi bokk islaam yi li sëñ bi bëgg nañ sax ci jaamu yàlla. te Cheikh Amadou Fall wax na jaamu yàlla liggéey moo koy sàmm da ngeen fonk liggéey bu baax ak koo xam ni liggéey yooyu doo doo am loo tedde doo mën a jaamu yàlla kon nañu fonk liggéey bi te bañ koo foyee waaw jamono jamono jii nag fi moom xaw naa jaxasoo lool waaw waaye yàlla mi nga xam ne nag moom mooy borom jamono te moo jëfandikoo coobaram ci lu ko soob noo ngi ñaan mu xet li jaam yi yërëm leen dundaawal axira te dimbale leen xat-xat yi fi jamono yëpp suñu borom jële ko fi barkatu rasulullah ak Cheikh Ahmadou Xatim Rasul alhamdulilahi rabbil alamina ah biñ ko fekkee ren ndax ba tawat ji kenn ku ne jàppoon nga ni magal gi du kon nag bu yàlla defee ñu fekk yàlla fekk fi fekk ñu tal ko fekk fi jàmm kon nag yàlla rek lañ ci war kon na ngi yàlla di ko del di ko sant santale Cheikh Ahmadou Bamba waaw li mu diwla ñu def ko it lu waay man tamit ci ginnaaw ba ci xarak ba yeeg gëléem yëpp ak i ak i fos furu yeeg ndox yi sedd ak lépp lu jooy mën na ko def na noo ci taalibe yi ñu ngi ci kon noo ngi ñaan taalibe yi li ñu ci sëriñ bi àdduna suñ borom defal nañu tawfeex bu baax a baax ñaan jàmm ci àdduna bi di ko ñaanal réew mépp di ko ñaanal taalibe yi nekk ci biir réew ak bitim biir réew mi it am naa lu di digal nañ sax ci boole seeni xol boole seen bopp bu leen kenn mën a taqale waaw xeeti politique bi nag moo tax may wax ñu xam ne taqale nii rek ku ne dina divisé te kenn nga sa bopp rek koo ci jàppale ba mu fa téléphone sax doo ko mën a jot doo ko mën a gis waaw kooku jërul xuloo jërul rey sa bopp jërul xeex bopp waaw ñi xam daal ñooy politique ñoom dong mi fa ñoom dong ñoo koy jëriñoo nañ politique ñoom dong nañ ci génn ñi nga xam ne seen yoon nekku ci waaw tabaraka wa taala la ñu sant yàlla bu baax di leen digal nañ sax ci leen sañ bi digal rek jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey sax ci ak jub boole seeni xol ne ñaan jàmm dafa ñaanal jub ak islam yëpp ñaanal sëriñ Muntaxa ak njabootu yëpp di ñaanal kilifa diine yeeg yëpp yàlla boole seen xol boole leen tamay leen jàmm ñëpp waaye maa nekk ko ñaanal bokk taalibe yi foofu fooy maa nekk barke Cheikh Ahmadou Khadim jërëjëf sant nañ baax da sëñ Fallu maa ngi lay gërëm ci teew nga teew fii nga jottali suñu kàddu bokk taalibe yi noonu la ciy sant di la di ñaan itam foofu yi nga nekk yàlla gën ko jëme kanam jërëjëf يخيب على ما هي سيسادا